jënd ak jaay ci wàllu auto location ñoo ci teg loxo mu fas yéene ci ànd ak ñu ci mel ni wasaare lamb Lutte TV fm di Télé Futurs ma ne mbokki Gambie bés ba ngokk jamaykee dikkati na te saa yu dikkee xoli sedd on di dattin février yi ci milies say jëm bu bakkaaw ma ne bés ba ngokk bu ngeen xoolee yéen Gambiens yi ba Sénégalais yi fees est jëm bi seen affaire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 ñaari yi nga xam ne ñoom rekk fees nañu stade rax ca doole ne dama ciy toftal yeneeni combat yoo xam ne amateur bu ko dégg sa bu Serekunda ak Boy Balla bu jabang bébbe xarañ bu jëf jël ak amical bu rut ak ama bu Serekunda gëm sa réew Balla junior bu Balla family ak rëg-rëg bu tali ning ak lion noir bu Serekunda mbooloo voling bu Ebo Town mbooloo ak T-Max bu budung nurat bébbe soldaru baay bu paradise mbooloo ak bébbe kolobaan bu tali ning mbooloo artiste bu club nu kebe ak ning nank bu ékiri baka